ginnaaw accident bu métti bi nga xam ne moo am démb ci yoonu Touba yu victime yi nag bari nan lool ndax toll nan officiel ah, ci juróom-ñaari doomu aadama yoo xam ni ah, am na ñuy wax lu ëpp loolu sax waaye officiel na moom juróom-ñaari wér nañu ci ñàkk seen bakkan ah, li nga xam ne nag mooy victime yi mooy ñu ci génn si àdduna ñenn ñi nag moo tax ñu affiché noonu photo bi waaye nag dañ ko xaw a maanaam am luñ ci teg ba maanaam respecté li nga xam ne mooy doomu aadama ndax euh, ni nu génne àdduna dafa doy waar lool loole tamit bokk ci lu am solo loo xam ne maam ñu bari war dañ koo bàyyi xel ci image ndax mën na am image yoo xam ni mën nay soge yenn doomu aadama yi am na ñoo xam ne mën nu xool yenn image yi lii nag bokk ci li nga xam ne mooy euh, daje bi ñu gis ni camion baa ngoog tey euh, car bi nga xam ne moo yaboon victime yu bari yi ngeen gis camion bi ni mu dalee ci kawam camion bi nag ci kanam gi donc moo yàqu waaye ci ginnaaw gi euh, bëriwul benn jafe-jafe mu nekk accident boo xam ne mi ngi am ci diggante Ndoura démb ñëw nañ ci ak diggante fi nga xam ni moo nekk fële ca Ngaabu fukki nit nag ak juróom-ñaar yu ci am ay gaañu gaañu ci li nga xam ne mooy bila provisoire bi ah, tey it euh, kër docteur jël na leen ñu ngi am paj mu euh, am solo moo xam ne ñu ngi ko euh, teg di leen ko def di leen ci jàppale bu baax a baax ndax loole bokk na ci li nga xam ne mooy ab sabab beneen bi mooy li nga xam ne mooy démb double meurtre bi amoon fii ci Thiès ñu gis ni kii nag nekk kenn ci victime yi nga xam ne yaakaar naa ne moom mooy ki nga xam ne nag moo nekkoon di eh, ànd ak eh, beneen xale bu góor di agressé borom jakarta ba ko moom mi nag moom la gone yi nag eh, jàpp ci image yi ñu leen di wane donte image nag xaw nañ koo xëcc du leer cent pour cent mais pour it respecté doomu aadama ba tey it ndax maanaam dee rek moom génn àdduna mu génn àdduna la te it doy na waar lool moom mii ngi nag ñu gis ni jëf la jëf joo xam ne nag ah, xam naa nekkul lu kenn di rafet lu nekk na jëf joo xam ne ju ñaaw a ñaaw la moom nag takk der yi bala nu ñëw wala ba nu ñëwee gone yi tamit sa ah, saddam loo nan ko dóor ko dóor a dóor ba mu sonn ah, ci coono boobu mu nekkee woon nag moom jëmm ji foofee nag la ko gone yi fekk ci image yi démb ni ko waxee maanaam xel li ci moto bi nga xam ni moom la doon bëgg a ba ñu xelee nag essence bu baree bari nag daal di tuuru essence boobee moom la jàppoo jël ko daal koy sotti ci kawam daal di koy taal moom it taal ko nag euh, ba mu génn àdduna ci noonee loolee nag bokk lu am solo ci li nga xam information yi ñu leen doon andil.